ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di ko ñaan yàlla ñu jéggal suñu rëcc rëcc yàlla nañu nangul suñu jaamu yàlla nañu fulal suñu yiw ginnaaw suñu bakkan yàlla ñu yàlla may ngërmande ñuy nuyu waa daara ji yëpp daare xam-xam di tuub bu baax nag ci boobu ba léegi seen mbokku taalibe Suraxatu Diop Richard Toll gaaya mhm. euh, dëkk Richard Toll commune Richard Toll quartier gaaya de ñu ngi leen di ndokkeel bu baax dëgg la depuis jamono ñu ngi dégganteek Serigne Sarr muy sàkku ci ñun matière bii di xam-xamu tajwid matière tajwid ñu nafar ko fii ci bi ci biir ëtt bi waaye tënku tax na boobu ba léegi rek ñuy waaj di xool ban yoon ban bunt la ñuy jaar ba mën a dugg di ko def waaye comme ni nga xamee ni daara ji moom boo ci nekkee daanaka ak yittee jamono ji dafay tënkal lu bari moo tax rek te boo sasoo loo xam ne danga ko def saa su ne te léeg jot ga mayu ko nga di ko fausé day xaw a nu mu tuddati moo tax rek ñu doon xaar ba gën a am tuuti eh, jot goo xam ne suñ ko tàmbalee daañ ko mën a eh, ci ndimbalu suñu borom amaana yàlla mën ñu cee jàppale ba nu yeggal ko fi nu fi nu bëgg moo tax rek ñu sant bu baax mu may lim ñu may ñu mën koo tàmbali waaye di ko ñaan yàlla ñu may ñu mën koo yeggale te it mu def ci barkeek leer ba tàbbal ci xolu ñu koy déglu ñépp ñu mën a nafar mbind mi nga xam ni ñu ngi ko doon appliqué ca daara ja ba ni ñu tolloo fii may ñu ci dégg-dégg bu leer dafa ñu ci ngërëm soob yàlla ñu fas yéene ñu fas yéene ànd ak yéen ci tajwid xëy na ñu dikk ci xam-xamu tajwid waaye tajwid bii nu fas yéene jàngale tatbiq bi dañoo xool ni yoon yu ñuy jàngale tajwid bëri na waaye téere bii nga xam ni a cheikh al allaama cheikh samba diagne xafizahu llahu wa ayadahu wa raahu moo ko liggéey yoon la ci yoon woo xam ni wu yomb la lool sax dafa jàppandi dafa gën a yomb ci boo ko dee leeralal nit ki ci bu tiimee alquran demal boppam xëy na balaa ñoo dugg si ci téere bi nag téere bi mi ko tuddee at tashil li muallimi tilawati bi tartil yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla yokk ay xéewalam ak suturaam yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar ndax sag la ci diine te it sag la ci liggéeyal alquran moom Cheikh Samb mbind téere bi xafisahullah digganteem ak euh, suñu sëriñ suñ muntaqa ñëpp xam nañ ko ci cofeel gu rëy gi ko suñ muntaqa ëmbal waaye digganteem ak maam Mor Mbàkke ñëpp duñ réeré wuñ ko ndax xam naa ni ndax ci li nga xam ne jot nañ koo dégg bokk na ci li tax dellu seen fii Sénégal liggéey fii ci ak liggéeyal alquran ndénkaane maam moor moom ci la bokk waxam jooju ndax fekk na ko ca réewi naare ca euh, Mauritanie ca daaree mu ne ko fiiloo loo fii def ñibbil Sénégal li nga yor ñaka soxla ña nga ba tax mu ñibbisi nekk ci daara yi di liggéey liggéey ci daara yi ba nekkoon fi directeur ci daara yi xanafiya mahadu islami boobu nga xam ne moom la sunu maam ju baax di suñu abbas taxawal ba ni mu sampee ay daaray boppam liggéeyal alquran ba kaamil bi mu bind nga gis ko jamono yi passé rek ñu yóbbu ko def ci mataabi yu mag yi ci azhar tabu ko génnee ko mu nekk téere boo xam ne dafa am qabul mm-hmm. am na ijaazatu tadaawul fi jami anha il aalam muy lu rëy loo xam ni ci joxoñu mag ñi rek ndax mag mu nekk joxoñ na ko ni ko sa mbind mu rafet mii de liggéeyal bind ci alquran rek moo ci gën a yey ba tax mi ngi ci liggéeyal mag ñi ci liggéeyal alquran yal na yàlla yokk ko xéewal dolli ko sagal dolli ko sutura dolli ko aar ñun nag ci ay ndongoom lañu bokk ñun ci ay njabootam lañu bokk mu nuy tette di ñu wax jaar leen fi jaar leen sëriñ téere bii nag dafa bokk ci téere yi nga xam ni dafa gën a yomb dafa tënk bu baax te leeral te gën a yomb ci nooy jaar ba jàng alquran jàng mu rafet xam-xam bi nag ñu ngi tudd at wiit خم خم بي التجويد لتدو ولا tudd علم التجويد علم تعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية كما نطقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممنق ويؤخذ مشافهة عن شيخ أو أستاذ عند عنده إجازة بتعليم التجويد وخم خم دي xam-xam la boo xam ni mën ngaa gis ku ko mën loolu te te te mënta ràññee benn xukm ndax dañ ko ko sa ilqaay ko talxin mën na nekk loolu mu daan am sax daawuñ jàng matière tajwid dañu daan talxin alquran bi rek ma al ahkam xam-xam la boo xam ni dañ ciy jànge nu ñuy tuddee xarfu yi xarfu alquran yi comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wa daan tuddee xam ni yaa ngi koy jëlee ci ab sëriñ mu musaafaha muy wax ngay yëgg ngay xool na muy def gémmiñ ga na mu koy wengalee na mu koy moom lépp na muy def nga jëlee ci moom noona njàng mi nga jëlee ko ci sëriñ boo xam ne nag ku am ijaaza la ci war a mën a jàngale xam-xamu tajwidu Qur'an xam-xam boobu kañ la tàmbali xam-xamu tajwid mi ngi tàmbali maanaam jàng matière xam-xam bi ko ilmi mustaqil mi ngi tàmbali bi ruqatul islam commencé di tasaaroo ci troisième siècle bi ñetti téeméeréelu at bi li hijrati xam ne booba xeet yi dul arab dugg nañ ci arab dugg nañ ci islam fa siine di jàng alquran mais di yàq di ko yàq loolu waral na ñu commencé di bind ahkaam tajwid yi di bind règle yu xawaayid yi ñu ni nag boroom xam-xam bi njëkk taalif dajale ahkaam tajwid yi moo ngi tudd al imam abu ubayd al qasim ibni salaam ci troisième siècle def loolu téere ba dajale woon loolu nag mu ngi ko tuddee kitaabul qiraat waaw tajwidu quran moom ban àtte la am waaw moom luy àtteem maanaam di jàng alxuraan di ko tajwid fardu kifaaya la maam jàng xam-xamu tajwid fardu kifaaya la maanaam am ku xam xam-xamu tajwid mën a joyanti nit ñi loolu fardu kifaaya la bu amee ñu xam xam-xam boobu di ci joyanti nit ñi comme ni ci eh, ñoom Ibnul Jazari yi mel boroom xam-xam yooyu comme ñooñu nañ ca mel ci génnante nit ñi xam googu fardu kifaaya waaye kenn ku nekk booy jàng alquran di ko jànge jàngin mu wér tajwid normal loolu moom fardu ayn la faratay kenn ku nekk la mhm. comme sunu borom mi ngi wax aw zid alayhi wa rattilil quran tartila mhm. euh, يا أيها المزمن قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا موتخ ابن جزري رحمه الله لوح في مقدمته كثيرا بابو في مقدمة الجزري مغنان والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة ما شاء الله نعم الأخذ بالتجويد جنگ تجويد ما نحل جنگ بعد وير حتم lu dogu la لو xam ni laazimu lu taqoon alquran la maam lu dogu la lu e man lam yu jawwidil qur'ana ku rafetalul sa njàngin ci alquran jàngoo ko njàng mu wér asimu yaa ngi bàkkaar lu li annahu bihi l ilahu bihi l anzala ci tajwid ci njàng mu set wér noonu la ko yàlla wàccee wa hakaza minhu ilayna wasala te it noonu la jaare ci yonent bi yegsi ci ñun wa huwa aydan xillatu tilaawa mooy taar mooy rang mooy rang mooy ràng mooy takkaayal njàng wa zinatul adaa mooy taarub jooxe gi wal qiraa ak njàng mi kon nag xam xam-xamu tajwid dafa jaadu pour nit ki ci xel kon nag il faut ñu dikk laaj jàng kon ñu xam lan mooy tajwid tajwid mooy lan est-ce mooy neexal gi fisk mooy nosal gi fisk mooy takalluf gi déedéet ñu ñëw nag ci mbind mi nga xam ni mu ngi ñuy jàngal lan mooy tajwid mu ni ñu lan mooy at tajwidu mooy lan tajwid léegi nag dafay jàngal baat bi lugatan arabiya arabiyatan mooy lan هذه الكلمة في اللغة العربية ما معناها لكن عند السلاح المجاورين ما معناها بعد لمي تكتي جانا كتي القرآني أك كتي تكتي كتي تجويدي أك كتي لاكو عرب مالا تجويد ميجوية جوودة يجويد تجويدا جوودة مرافة التجويد في اللغة هو التحسين والإتقان mooy rafetal maîtriser ngay maîtriser mbir mi ngay mën ba noppi rafetal tuddin wi kon jàng kon jàng te yu alxuraan si simple mooy li ngay wax waxee ko noona waaye na man li ngay wax waaye at tajwidu inda istilaaxil mujawidin inda istilaaxil mujawidin jàngkati alxuraan yi tajwidkat yi li ñu jàppee tajwid moom lan la huwa tilaawatul quraan mooy da ngay jàngal quraan bi ictaai kulli xarfin xaqahu wa mustaxaqahu min maxrajihi xarfu bu ne danga kaa jox aqam limu moom wa mustaxaqahu jox ko limu yeyoo mu jaaree fan min maxrajihi fa mu war a génnee relative yoonam nekku ci baat bu neex ak bu naqari tajwid lijjantil baat bi neex na wala naqari na waaye mi ngi lijjanti baat bi wér na wala wérul neexal gi nag moom astuce la ci rek te la ci lan mooy xarf maa huwa xaqul xarf xaq bi nga xam ne moom na xarf bi yeyoo ci tuddin wi mooy lan huwa sifatuhu zaatiya maanaam melokaano jëmmam xarf bi ni mu bindoo dafa am tur tur woowa mu yelloo jox ko turam su fekkee xarf bi ba la tudd boo koy jàng woowee ko turam woowa melokaan wi mu taqoo muy turam jox ko turam wi xam nga fekk ñu bind bismillahi baa gi moom ba la tudd moom nga war a jàng nga ñëw tudd ta xam nga loolu da waaru hmm? bi bu mag ba doon def ci kanamu ndongo daara yi di tiitaru wane ni moo jógee daara ji ñëw ndekete am na ci xarufu yu mu xamut nu ñu tudd leen dee leen xool kaamil bi bu baax ndax am na ci xarufu yoo xam ne dañoo nuroo diggante saat ak miim dañoo nuroo lool ñu jox ko jukki muy jàng àgg ci in kuntum saadiqin daal ni in kuntum maadiqin loolu jox na xarfu bi tur wu mu moomul kon loolu moom mooy xaqul xarf xarf bu ne da koy jox tur wa mu tudd waa mustaxaqul xarf mooy lan xarf bi lu mu yoyoo mooy lan mu ni mustaxaqul xarfi huwa sifaatuhu al ardiya léeg bi daga gis ne lii la tudd mais nga tuddee ko ni mu tudd ba noppi am leneen loo ca dolli loolu di ko gaar melokaan woowu di ko gaar xam ni léeg-léeg place ya muy nekk am na xarfu ya muy tombeel am na tuddin woo ko war a tudd kooku lañ tuddee mustaxaqahu di xarfu bi yeeyoo loolu nag tansha'u mi ngi sosoo an sifaat azzaati mulaazima lahu melokaan wi taqoog moom tur wi mu tudd moom xarfu bi da ko tuddee tur wi mu tudd ba pare am noo ko tuddee loolu mooy mustaxaqahu xam nga an xam nga ko an an la wax mais léeg-léeg ñu ne an kaana an fuñ ko bind xarf bu tudd an amul mais kooku sifaat ardiya la noonu nga koy tuddee di ko nëbb loolu moom mu ñu tuddee mustaxaqahu ci côté boobu soo tuddeewul xarf bi ni mu tudd wala melokaan wi ko gaar mu yeyoo ko joxoo ko ko kon am nga loo def li nga def na mu tudd loolu moo tudd allaxnu yàq hmm? bépp xarf boo ko joxut li nga ko war a jox tuddoo ko ni ko war a tuddee am na lu xew li xew noonu nu mu tudd li xew noonu mi nga tudd allaxnu yàq allakin lan mooy laxnu ci làkku arab ak lan mooy laxnu indal mujawidin mu ni allaxnu fi lugati huwa almaylu an ilsawaab ñàkk jaar ci yoon xarfu bi ah la tudd nga ñëw ni sa yàq nga xarfu bi dañ koo war a idgaam nga ñëw idgaamoo ko yàq nga xarfu bi dañ ko war a ixfa nga ñëw ixfa woo ko yàq nga nga de lan mooy yàq laxnu mooy lan ci ci ci ci luxa al maylu jeng ñàkk jaar ani sawaab ci lu jub ani sawaab lu jub tuddoo ko daal waa lan mooy laxnu ci jàngkati tajwid yi al laxnu fi l istilaax ay fi istilaax al mujawidin huwa al xata'u mooy juum wal maylu ak ñàkk jaar ani sawaabi ci lu jub fi l qiraati ñu ngay jànge maam li ngay jàng nga jàngee ko nu dul noona kooku mooy mooy yàqu yàq nag dafa ami dëgëre xam nga xarfu bi nga woowee ko tur bi mu tuddul kooku yàq bu rëy la waaye nga woowee ko nu mu tudd waaye na ko waroon tuddee tuddee woo noonu maam woowee nga ko tur wi waaye am na façon boo ko waree waroon a woowee tur wi dafa woo ko noonu loolu yàq la it kon xam nga ñaari degré yàq yooyu tolloo tudd nga suur xarfu bi ci boppam waaye ni ko war a tuddee tuddee woo ko noonu ak ñu wax la xarsu bi nga jox ko beneen tur bu moomul ñaari yàqu yooyu degré yi bokkuñ loolu nag moom la ñu tuddee ci tajwid laxnul jëli wala laxnul xafi ñaari façon yàq moo am ci booy jàng yàq wu feeñ ak yàq wu nëbb mu ñu jàngal la mooy laxnul jëli mu ne al laxnul jëli yàq bu feeñ يقب فند هو الخطأ الذي ما يقب خمني يعرفه القراء جانغ كدي خمنكو وغيرهم ينين مدول نيوم دي أي جانغ كد خمنكو من بوك يقل أوتوماتيك ما كي جانغ دي خمني يقنغ كي خمني سوري ولتم جانغ دي خمني يقنغ كم لنك إبدال الحرف بآخره fi xarf bi waroon nekk nga def fa beneen xaraf kooku yàq la yàq bu feeñ la mhm. kay yàq la hmm? léegi daf ñuy daal ci njàng yi njëkk njàng yi nga xam ni façon njàng yu njëkk daan naa daan naa julli ci ginnaaw imam nga dégg ko muy jàng xayril maxluubi alayhim wala laaliin xam kooku xarfu bi tur wam ko war a jox joxu ko ko léegi nag loo xam ci borom fiq yi danañ àtte foofu ndax dafa mënul tudd xarfu bi wala mën na ko da cee sàggan ci ak seeni àtte xëy na waaye ala kulli xaal ki nga xam ne xarfu bi tur wañ ko war a jox joxoo ko ko yàq nga yàq bu rëy rëy Hmm? wa wajadu ma amilu xaaliran xaaliran hmm. mais boo gisee loolu loolu yàq la yàq la yàq bu rëy rëy rëy ndax da ngaa génnee xarfu boobu jox ko beneen xarf da nangu turu jàmbur jox ko beneen tur koo waroon a woowee Moodu bu ñëwee woowee ko Demba tooñ nga ko loolu yàq bu rëy la loolu rek la أو إسقاط حرف من كلمة ولا رجل بأن بعد أم بعد حرف بوت رطب تدو بعد بمات نقول يا خنق غنيو فيك ذهب غنيو نزه يمفا ما غنيو نزبا يمفا أم قالوا باي صورة لب حرف كي أبات يقنغة يقبو برين أو زيارة حرف فيها ولا غنيو بعد بنغة يوك كي بعد ndeysaan ¿Eh? nga fekk tudd ba tudd baat bi mu yem fii mais nga tudd ko yokk ci beneen xarf ala mahadi nga ñëw ne ala manahadi xaq nga akuli xaal loolu ay xata la xëy dañ ci ñëw lan mooy laxnul xafiy من اللحن الخفي هو الخطأ الذي ما يقبل خمني لا يعرفه من راني إلا القراء ذو الجنگ كتي صلي كم جنگ كم جنگ القرآن لا وخ نح جنگ عربة تقول نغا منا خم كيق تجويد القرآن وغير إلا القراء العارف نخمه ka tarkil ixfa comme boo bàyyi woon ixfa mhm. boo bàyyi woon ixfa yàq nga waaye yàq boobu du ñëpp ko mën a xam ki yeewu ci njàngum alquran ak tajwid kooku ko mën a xam wal iqlaab boo bàyyi woon iqlaab ñoo ko mën a xàmme wal xalxala soo bàyyi woon xalxala ñoo it ñoo ko mën a xàmme kon loolu mooy yàq wi nga xam ni yàq bu nëbbu la yàq bu nëbb boobu sax may sa koo toléré da nga gis léeg-léeg ulama yi nga xam ne ay fuqaha la ñu mag danaan wax ay baat jàng alquran nii wax ko mu leer mais duñu sàmmonteeg ak saa yeeg yooyu kooku ñooñu benn paar bi jël ci mooy wax nañ baat ji mu set wecc iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insana min alaq nekk fa di ixfa wax na ko mu leer kooku d'une part laxnul xafi lay def te loolu ala kulli xaal ci kiy jàngale kañ waaye xam dafay jàngale xam-xamu alquran nag kenn du ko baal yàq yooyu kii dafay wax pour firi pour leeralal nit ñi sharx na muy waxee baat yi te ànd ak yenn axkaam tajwid yi maanaam eh, ixfa yeeg xalxa yi laxnul xafi lay def kooku may na ko tollale ndax day jàngale waaye kiy tajwid di jàngale xam-xamu alquran ilmu qiraat kenn du ko baal lool moo tax xëy ne bu ñu ñëwee ci yeneen dars yi continuer incha allah ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu may ñu mën a yëggale chaque alxames mu may ñu jot gu tax ñu mën cee dugg di sàkku ci yéen ñëpp ngeen ñaanal ko yenn yàlla may ñu ñu mën a jàngale téere ba mu yëgg incha allah may ñu it nag nafar ko ba mu leer dégg ko بكتيم ستيرة سخ من دم سبب إن شاء الله يعني يلا دخل ميديك توب يوكنيو توفيق أبسطرا خيول سرين بيني خامن مم مونيو دجال بندمي تيوم بالكوني يعني يلا يوكو دجال يوكو سام شخص مجاني وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته